asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alxaaji mbégi jëm ak Mame Ndokh mbokk yi nag tey dañu ñëw ci histoire soxna Astou Seye Mbaye mii di nuyonteeg Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy responsable moral ndax nag euh, soxna Astou Seye Mbaye mii di yaayu alxaaji mbégi Diop borom Mame Ndokh TV di doom ci soxna suñuy wax yaay ndox bi nga xamante ni moom la ñu tuddee site internet bii ak góor gu ñuy wax Baye Ndox ñoom ñaar dañoo am ñeenti doom seen taaw ñu tudde ko soxna Umu Xayri Si jox ko soxna Umu Xayri Si bu Sëriñ Babacar Si mu yar ko seen ñaareelu doom bu jigéen ñu tudde ko soxna Jeembaay tabaarakallaahu jox ko soxna Zeynabu mu yar ko waaye soxna Assu Sey Mbaay mii nag dañ ko joxoon soxna Sëfi Dem di wéy jur wu jigéen bu Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy responsable moral tabarakallahu seen diggante foofa la tàmbalee ndax ndox soxna say mbaay soxna safitu dem lépp lu nekk ci moom soxna safitu dem moo ko def ci moom moo ko yar moo ko jàngal liggéey moo ko formé moo ko defal lépp tabarakallahu fale diggante Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy ak soxna astu say mbaay bi commencé bi ci des mooy kër jëmb gi nga xamante ni moom la Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy ñëwoon tey ka fa tëdd di góor gu tedd gu ñuy wax góor gi Alsaan Mbay di bàyyi góor gi Alxaaji Mbay Donde di maami Xalifa Mbay moom ak seeni ngaale bi jur yaay ndox yaay as sëy ñoo bokk nday ak baay kon Serigne Moustapha Sy dëkku maamu soxna asu sëy mbaay mii la jëf waaye mbokk yi ñu leen xam ne nag soxna asu sëy mbay mi yu bari ci wàllu àddunaam Seydi Mouhamadou Moustapha Sy mii moo ko ko resal di ko ko defal sëriñ bi merci beaucoup ñun famille bi yëpp neen jërëjëf yàlla na yàlla guddal sa fan